rahmatullah mbooloo bi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci ne ci turam santam ci yëkkati kàddu gi ak kersa gu bëri eh, mën naa wax ne sax gàcce la ndax eh, bi may jógee Dakar di jël autoroute Total bi mooy booy jël péage bi Dakar Backdoor mu ngi nekkoon vingt heures vingt et une minutes moo sombel fële parce que dama gis mu dugal ci statut moo ko ne kon dañuy commencé xaat mu ne ma wax maa ngi si fii ba vingt et une heures quarante deux kon diggante Dakar ak fii euh, daw naa lu ma dul daw surtout guddi ndax une heure vingt deux minutes laa ko def yoon yu neexul li ko waral mooy amoo yéene lool lool lool lool lool fekkee waxtaan bi fekkee ko barkeelu ci jëruñoo ci te mënuma woon bañ a def lool xanaa ngant def ma tey Dakar mu am sama emploi te ni mu chamboulé woo noot ma ëpp doole lool may dooree rek fii mbat laa bi commencé wala fa mujjee xale mooy lu ma woowee wooye na ko conseil waaye ci man ndigal la ndigal la ndax Cheikh Ousmane di di sama mag di sama wasila di doon koo xam ne xëy na ñu bëri xamuñu ko waaye ku ma soppala lool lool lool lool man maa ko gis bëggal ko sa bopp te xam naa tamit doonte ni ma koy fësalee neew na boo ko gëm-gëmalee ci lu mu ci sama xol am naa ne moom tamit ku ma sopp la ndax semaine bii ñu génn nii foog naa ne lundi la war a doon moo jël itam jël téléphone envoyé ma message whatsapp jox ma ci ndigal ne bu ñëwee naa ko dem seeti li ma ko tontu mooy sama yéen la woon sax mi ñëw wax nañu ba pare te waxul benn yoon gàmmu gi ñu doon wax ci kenn koo xamante ne daf ko gis sopp ko kenn koo xamante ne daf ko gis def ko rakkal kenn koo xamante ne ko gis daf ko taalibe te ma am yéene nag jëm ci ñu ma fexe ba ma taalibe boobu ndax ni ma leen ko waxee nii jootaay taxul may wax ndax mënoon naa wax ba pare te duma wax ne man dama ko bëggal sama bopp kon ndigal la ci man bu ñëwee li ma ko xam ne mooy boo yëg séeréer ba noppalu wax ma kañ ni la man maay déplacé ndax maa war a déplacé wu ci waxtu bi may wax ci bés bi may wax ñoo seet si la kon loolu mën laa ay euh, jombul na sax ñu bëri ci taalibe yi nekk fii xamuñu woon moom yenn saa yi waaye ni nga ko ñaan moo tax ma yëgal la ko waaye mënoon na sax ñàkk di jéegalu ndax bi ma yegsee fekk naa waxtaan te kilifa yi fi nekk sax ku ci ne ñoo ma la ñu yoon teg yow saa moom yow doon bañ a perturber rek la moo tax mu dox man ci waaye yéen a googu mooy farata li tax nag ma doon daw daw yu métti yooyu ci guddi di doon daw yoo xamante ne sax taw moo ko ci oto bëccëg waxatu ko guddi yéen gi ma amoon teewee waxtaan gi ci ndoorteel ga dafa mu bu fi kàddu di daanu ndax daaw bi ñu ko defee fële ci ñoomaat foog naa ne njëriñ liñ ci jëlee bëri na ci dégg diine ci dégg xam-xam ci dégg surtout li nga xamante ne mooy lu fësul te di wax ndax wax bu metti bu bu jafee ak bu yombee yëpp dégg gaa gën a jafe lool moo tax baatin am loolu moo tax ñuy wax ci dara wax mbóot wala ñu wax suuf wala li ci biir te foog naa ne loolu tarixe gi ngeen xamante ne moom ngeen di yaatal fii nga ñëw di e, di féete ci Cheikh Maulana am na ci xóotal lool lool lool lool li nga xamante ne moom rek moo jar a xam mooy xam ba pare di door di jaamu parce que bu mooyee loolu rek lambatu moo bu mooy xam ba pare di doog a jaamu ñu ko yàlla laajee lambatu moo fay te yàlla lambatu du ko foog naa nag fii njëkk a ñaaw daayira ji lu jar a soutenir la lu jar a jàppane la mbooloo koo xamante ne bu jar a dugg la ndax ñu ngeen gis nii yëpp seen kanam. lenn rek lañ nam mooy jëm ci yàlla jaarale ko ci njàngale Mawlana Cheikh Ibrahima ñi nga xamante ne moom la tàggat bàyyi nañ fi te lu muy fànq ci yoon woo xamante ne mënoon nañ aw mu doon loraange ci ñoom bëri na lool te ay nit a ngi fi tamit topp ñu yoon woowu ñu ngi ci yoonu loraange tey nu man mii sax ci laa bokk kon kenn amul seen fay kenn amul seen fay kenn amul seen ngërëm xanaa di leen bàyyi ak yàlla mu yokk seen maqal yokk seen xam-xam yokk seen doole ak seen taxawaay ci baatin ak ci zaahir ba ñii nga xamante ne ñëw nañu weeru ci yéen di leen tette yoon wu ñu namm lool ci ñun lañ koy awale maa ngi jégalu ci guddal gi dafa wax yàlla sax kàddu gi yeloowu ma ko ndax retard bi yeloowu ma ndax ci la fi fekk yëloowu ciy teg mooy koo xam ne xëy na ñu bëri dinañ jaaxle sax ñu toog ba heure bi te turam waxuñ ko ci jootaay bi lu bari muy son excellence le président Bassirou Diomaye Faye euh, xëy na am na nu mu daan demee mën nañoo wax ba jeexal te duñu tudd turam waaye loolu nekkatul yoon ci Sénégal jootaay bu mel nii am ñu wax bañ faa tudd turam euh, di le président Bassirou dafa bokk ci daayira Sabilu Salaam dafa bokk ci à Cheikh Ousmane Fay, di sunu mag li tax ma mën a seede loolu ku tàmm di ñëw gamu ñoomar ci bu muy am surtout la possibilité ñëw fii gis na ko muy animer ay conférence ci cérémonie officielle gamu ñoomar gamu bi nga xam ne ñun ñoo koy taxawee ci njaga ñaaw chaque année biñ ko sosee ba léegi mosu koo tardé te bu ñëwee dina génne alalam bu bëri bokk ak ñun jootaay yu bokk ak ñun programme bi benn yoon lañ ko def fekkewu ko mooy bi nga xam ne mooy ci jàll nii te fekk ko ci biir kaso bi kon kooku ci ñun la bokk mën nañ ko réclamer wu moom si boppam toog na ci ay jeetaay yu bëri wax seede loolu seede ne Cheikh Ousmane fii fay bi mooy sëriñam comme ñun ñu nekkee ay taalibe ci Cheikh Ousmane kon damay wax turam pour mbooloo bi ñaanal ko ñu xam ne tey fu mu nekk nekk président de la république man duma ko jox kenn damay wax ne li muy liggéeyal Baye Niass te Baye waxoon ne képp koo xam ne liggéeyal na ma di nga jot sa càkkuteef ci àdduna ak si alaaxira man dama jàpp ne liggéey bi muy liggéey ci sabilu salaam loolu moo ko may li mu am bi muy nekk ci kaso bi Cheikh Ousmane fay mii nekk fees ci la ma yónnee ojo mu jox ma dog ne ma ñaanal ko Basiiru boo paree ci loolu nga dem seeti ko ci kaso bi ndaxte man li ma gis mooy que ne moom mii moom mooy ku ñu war a gunge boobu c'était le 6 juin 2023 boobu Ousmane Sonko moo nekkoon candidat Pastef mi ngi jóge woon sud di dem ndakaar ci la ñibbi ñu barricadé ko boobu kenn xalaatul Bassirou joomaay nekk sax candidat mu wax ma loolu ma def ko fàtte ko waaye bi mu demee ba mu ne Bassirou retiré na fii su parrainage ci la sama xel demaat ci loolu ma dugaat ci archive yi ba gisaat ojo boobu mu continuer di ko defal ay ñaan te noonu la ko doon defalee ñépp ñoo xam ne jaar nañ ci politique dem seeti ko kon loolu li ma ciy bëgg a feeñal mooy ko Cheikh Ousmane bii ku ci bëgg a falu boo demee ci moom boo amee yéene bu sell boo ko ko waxee dina la fal Macky Sall bu bëggee falu en 2012 dafa dagg àll bii ñëw fekk ko ci saalam bii ci ñoom a toog ci suuf mu ñaanal ko mu dem élection gagné ñun suñu maire bee nga xam ne moo fa jógee toog naa mu nee ma nit ñi mën nañoo gis te du ñu ràññee waaye man fi ma toog Cheikh osmaan moo ma fal fii kon loolu dama koy seede ñu bëri xamee ko ñi ko xam ne dañ ko doon xeeb ñu bañ koo xeeb ñu jox ko cër bi nga xam ne moom la yeloon ci lay jaare ci mom jox sen babakar sen mu jaara gaay fu mu doon jaar jox ko kaddu gi lu mu yëg mu wax ko bu joge ci mom mu dem ci serigne bi mu def ñaan ñu yëkkatee jotaay bi ba inshallah ci kanam ñu togat kon Cheikh babakar bismillah من ذا الذي ما فاقت ومن له من الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه ربابت محمد بشر الحمد لله حميتي السلام عليكم من شيخ الحمد خيرا بل هو كالياقوت بين الحجر